te élection député yi ñu passé ñaari député yi Thiès di am nar a nekk Siré ak Fatou Sène de la coalition benn Bokk Yaakaar gannaaw bi ñu leen ndokkalee sant leen mu ngi gërëm bu baax a baax askan waa Thiès wax leen ñu bëri gëmuñu woon ne mën nañu gañe élection yi waaye dama mës ne waa jot na bi ñuy délibéré 1500 hectares yooyu. dañ ci defoon loo xam ne du noonu yaakaar naa bu ñu demee résultat élection yi askan bi nañ leen def tranche kon loolu dama leen bëggoon jaajëfal askanu Diobass ma ne également waa département de Thiès yëpp maa ngi sant ndax man maay responsable AFP ci département de liggéey ak coalition benn Bokk Yaakaar liggéey ak Augustin ñu def campagne ci département bi fu nekk ñu yónnee fay ndaw may gërëm nag particulièrement waa commune de Thiès ndax commune de Thiès xam ngeen ne yenn journalistes yi ànd nañu ak yéen ci Mbour 1 ñu def fa ay meeting ñu dem Kër Maam El Hadj ak le mouvement des jeunes ñoom Idi ñoom Idrissa mu ndaw ñu dem également Cité Lamine Ersan Darou Salam Parcelles Assainies Fayu gis nañu wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu kon lii su amee tey résultat bi résultat commune la mais également résultat département de Thiès. looloo waral fi may daanalee ma ne ñu jàppoon ne mën nañu xajamal xelu askan ñu jàppoon ne bu ñu ñëwee jobaas tànn fi nit na tax jobaas wëlbati ko topp leen jum nañu ñu jàppoon ne nañ gis waa jobaas seen mbokk yi di xiiroo di ŋaayoo seen biir parce que seen jëf jum nañu ndax kenn ŋaañuwuñ fe kenn kenn wax kenn wax ju ñaaw waaye askan bi jël na seen destin am ko loolu nekk loo xam ne wane na ne politique mënul séparer wu ak ay valeur kon mbokk yi ñu ngi sant bu baax encore les de Thiès ne leen élection yi gagné yi ko jàmm ñu ngi dëgmal yeneen élection muy présidentielle 2019 muy élection locale la presque gis ngeen ñi ngeen ñi ngeen gis ñu toog fii ce sont les jeunes et les femmes qui constituent l'essentiel des comités électoraux qui sont dans les villages ñoom ñoo doon def tee débat yi guddi ñoo doon def proximité yi ñoom ñoo doon ànd ak ñun dans les meetings kon mbir mi du Aliou Sarr kese de déedéet man dama dañ ma jiital rek waaye les membres de la coalition benn Bokk Yaakaar les jeunes et les femmes qui sont derrière vous ce sont ceux-là qui sont allés au contact les jours pour battre campagne et délivrer le message de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui était, était de donner la majorité écrasante au président Macky au gouvernement du Sénégal pour que l'Assemblée nationale soit l'Assemblée nationale utile pour le peuple sénégalais jërë ngeen